wa rahmatullah nuyu nañu taskatu xabaar yi nga xam ne ñëw nañu fekkee tey ndaje mi dox ci diggante député groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ak euh, presse bi nuyu itam sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi déglu ak di ñu seetaan groupe parlementaire Yewwi Askan Wi nag tey jilee la gën a taxaw ngir wane ne ñu ngi jàppale président Ousmane Sonko ci nii ci nee ci saayir ak ci baatin Ousmane Sonko mi nga xam ne dafa nekk nag ak victime complot boo xam ne nguur gi ci boppam moo ko la ñu xaxar jëmale ci kawam jaare ko ci ay tribunaux jaare ko tamit ci ay magistrats jël lu tolloo wàllum justice bi lay instrumentaliser ko maanaam te du kenn ku dul pale ba Macky Sall ak seenu gàngoor di leen sant ñuy buur di buum ak a yàq te lii lépp dara waralu ko lu dul génnee Ousmane Sonko ci liste candidat wu élection présidentielle 2024 te loolu du am tey te du am ëllëg ba tax na député Yewwi Askan Wi de ñi ngi taxaw naqarlu jëf ji nga xam ne moom la àttekat bi di juge d'instruction bi def maanaam ay tuuma yoo xam ni yu ñàkk fayda la dara waru ci woon a jóge lu dul ab noo li yëpp ñu seetal Ousmane Sonko gas suul la fa coow la mu ne déedéet nañ leen ko dem àtte ji ngir xeex ko malheureusement comploteur yii nga xam ne maanaam ñoom ñoo def lu ni mel ndogalu borom bi day bañ nañ ko laqatu nag ci ay plan yoo xam ne ñoom daanu nañ ca fajar ngir xàllal ab yoon bu rëy ngir kii nga xam ne mooy président Macky Sall 2024 mu mën a bokk ci élection présidentielle yi maanaam troisième candidature te Macky Sall moo leen gën a xam ne loolu jaarul yoon du ci këyit du ci moral du ci yoon du ba loolu tax ndof ñi nga xam ne nag maanaam moom moo leen dugg ci seen troisième candidature bii nga xam ne moom moo waral tey ñu jàpp ay candidat kawam jaare ko ci tribunal bii ci ay magistrat waaye itam jaare ko tamit lu jëm ci wàllum administration bi te lii lépp ña ko def ña nga toog ca biir palais de la république di comploter te it boo leen fàttali ko seen yii nga xam ne yëf dof la jaare ko ci wàllum tribunal bi utiliser ay magistrat doorul tey parce que moom lañu fi defoon Karim Wade def ko Khalifa Ababacar Sall ne leen doo leen voté te kenn dootu leen voté ci mim réew te ñu nekk ay sénégalais ba loolu tax na nag machine bu bon boobu nga xam ne moo defoon jëf ju ñaaw moo continué ba léegi ngir dëbb moxoñe ay opposants jël Ousmane Sonko mi lee ba koo def nag seen victime bi di ñëw sacrifier ko lal ko nag ci ab tarixa bu bees boo xam ne moom lañ fi indi te tarixa bu ko nag ci ab tarixa bu bees boo xam ne moom lañ fi indi te tarixa boobee kat Macky Illimix la tudd nekk fi ba ilaa yow mi diin ni buur te loolu mënul nekk tarixa boobee day faalewul constitution faalewul lu jëm ci wàllum état de droit amul lenn lenn lenn loo xam ne dañ koo teg ci siraatal mustaqim tey it àtte bi it fas yéene wuñ koo teg nag maanaam ci yoon ñu tëddee njaaxaanaay déedéet waaye lu jëm ci wàllu liberté fondamentale citoyen yi ngay dem ak di kër yooyu faale wuñ ko tarixa wu bees woowu nag la fi Macky Sall indi ba tax na ci yëfu jaay doole ci yëfu maa tey boo xam ne moom la nguuru Macky sàll gi la nekkee sénégalais bu ne légitimement ci yoon bu ko tegee ci yoon war ngaa jug nag taxaw résister comme président Ousmane Sonko kon ni mu ko waxee lii tax na ba groupe parlementaire Yewwi Askan Wi danañu résister danañu xeex ak jumtukaay bu ñu mënti jëfandikoo ngir jàkkaarloo jaay doole di wàllum dictature bii nga xam ne moom la Macky sàll ak ay suqam nekkee ci mim réew ba tax na ñu ngi woon ak sénégalais yépp ñu jug taxaw résister xeex baare ma ki sàll mile nga xam ne jël na suñu république bi tëral ko def ko nag ab république bananière ba lii tamit tax na te dara waralu ko lu dul ay bëgg-bëggam rek ay plaisir rek yàqate réew mi yàq suñu démocratie bi moom moo waral nag mu bëgg a def kon lu ni mel ñuy woo nag magistrat yi ñi ngi woo tamit takk der yi nekk ci biir réew mi yor wàllum kaaraangeewu réew mi ñu daal di nekk nag ay républicain comme ni ñu ko xamee woon kon ci sénégalais boobee ba léegi ni lay nekk fi nga xam ne foofee la askan wi nekk di la peuple ndax peuple bi nag ñoo leen fi teg te ñoom it peuple bi kon fi nekkal bara bañ a topp rek ab nguur goo xamante ni nii ab jaaykatu doole ab dictateur woo xam ne leer na ko ne fa muy mujjee ak askanuk Sénégal gile mooy fa firaaw na mujjee woon ak yonent yàlla Moussa te moom xam na ko a ngi jeex na tàkk mënatul bokk ba lii nag tax na ñin moom dana danañu résister sénégalais danañu résister te dinañu am ndam ci kanamu njuuma lii di monstre bi pour won ko it ne ko peuple bi dong moo fi ne njuuma la c'est un monstre ba tax na nag te askan wi yëpp buñ songee njuuma la daaneel njuuma li ba tax na ñu ngi woo sénégalais góor di woo sénégalais yi jigéen nga xam ne wàllum justice moom moo leen tax a jóg moo xam ñu nekk ci biir réew mi moo xam ñu nekk ci bitim réew ñu ñëw fekk si mouvement bii nga xam ne dafa taxaw ngir liquider politiquement le président Ousmane Sonko waaye itam nañ ñëw fekk si mouvement bii nga xam ne dañuy xeex troisième candidature du président Macky Sall soo leen xoolee nag lii nii yëpp tax na député yi bokk ci groupe parlementaire Yewwi Askan Wi si lay jiite leen nee nañu ñu ngi jël nag seede ci kanamu askan wi ak ci kanamu yàlla moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew nañuy jël seede ne lépp loo xam ni xew na fii ci réew mii ci lu bon ak réew mu tàkk mbir moomu nga ko def tuddul nenn te santul nenn lu dul Macky ak Sall bi Macky Sall moom moo ko def kon nag bu réew mi tàkkee jàppalee ne Macky Sall moo ko taal allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam